asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ramadan di kooru 1443 ginnaaw gàddaayug yonent bi salallaahu alayhi wa salaam di atum 2022 daayira muxaddamatul xidma bu grande mosquée de Touba di leen yëgal fàttali ak woo ci ni ñu daan dundalee weeru koor gi ci grande mosquée bu Touba ci programme yu am solo moo xam waxtaan yi ñuy amal diir weeru koor gi yépp ginnaaw saan ñu ci ànd ak boroomi xam-xam yu kawe di ci tànn tem yu am solo jëm ci diine lislaam ak nekkinu askan askan wi noonee it la waa daayira mu xadamatul xidma waajalee ndogu yu am solo yi nga xam ni moom la ñu daan baaxee mboolem jullit yi nga xam ne daañu ñëw ci jumaa ji ngir ndogoo fa di leen fàttali it naafila yi nga xam ne moom la ñu amal ci biir weeru koor gi ci jumaay Tuubaa ji programme yu am solo yi di ngeen ko am en direct ci seen chaîne bi di MK TV wala GMT TV daayira mu xadamatul xidma indi innovation yu am solo jëm ci seen programme weeru koor gi ci seeni rubrique moo xam yóbbalu koor la la sunna yi ak lépp lu jëm ci wàllum koor noonu it lañ leen indilee ci programme bi ay xibaar yu ñu leen di baaxee tey bàyyeekoo ci dëkk bu sell bii di Touba ci biir weeru koor gi rawatina fii ci grande mosquée bu Touba MKTV ak GMT TV fas yéene ko ànd ak mbooleem organe de presse yi nekk ci réew mi rawatina yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba mu Muxaddamatul Xidma bu grande mosquée de Touba ñoo leen di ñaanal kooruk jàmm di ñaanalaat Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér